sëriñ bi noo gi siyaare bu baax. leen jottali nu yóbbu Cheikh Mamadou Mountakha. Cheikh Mamadou Mountakha xam gim xam. mbir mi ni mu yitteele ak ni mu ko yitteele. te ba ko mënee moo daan ñëwal boppam teg garab jëmbat garab bu njëkk yi. ba xamee ni mu toll. la yónni ci yow. ci yónnent ba rek ci nga njëkkee dafay yitte ju rëy paste bu kawe ndax boobu guddi na lool te ba nga yégee ne sëriñ bi yónni ma da ne naa ñëw ma ñëw fekk la foo xam ne. bàyyi sëñ Muntaxa xel ak sa pastéef ak sa yitte moo tax ma fekk la foofa ndax booba guddi na te yëfee jaxasoo météo na muy taw ak lépp waaye bàyyi koo bàyyi xel sëñ Muntaxa moo tax nga woo ma sa biir néeg ba ma la jot leen ndigal li nga wane mbégte moo ci am ci sëriñ Muntaxa mu lay liggéeyloo ak ma la wax ne taxawal ma fa loolu rëy lool ci yow te loolu nga jëfe ko tey waaye yónnent ba sëñ bi dafa maa waxoon ne naa wax sëñ Abibu ne ko bu ko mënoon mooy ñëwal boppam def ko nam ko daan defee bi mu ko ñëwut bi mu ko mënut ma wax sëñ Abibu ne ko sëñ bi yónni na ma ci yow ngir nga ñëw taxawal ko sëñ Abibu lool rëy ci moom lool rafet ci moom lool mu bànneexoo xook lool loolu nga jëfewaat ko tey bàyyi lépp ak sa tàngaay bi ak say yitte ak sa xat ànd ak sa rakk sëriñ Aliou ngeen ñëw teewal bi sëriñ Mountakha fekk bi sëriñ Abibu ngeen taxawal ko bis bi kon sëriñ Mountakha mi ngi lay sant di sant bokki taalibe bi yëpp di sant directeur BID ndax yàgg naa taxaw ànd ak moom mbir mii ànd yàgg naa ak moom liggéey bi yàgg naa ànd ak moom taxaw dëkk bi ci wàllu garab te sëriñ Mountakha wàllu garab ñor ko lool ba ca toolam ba ca mbul cee def béy di mooy ñëw def ko kon loolu nag bu amee bokki taal bi yëpp daje fi Touba ca kanam jiitu nga bàyyi lépp ñëw taxaw ak tàngaay beeg coono bi taxaw bi sëriñ Mountakha danañ xamal sëñ Mountakha ne ko lam bëggoon lépp defal nga ko ko dana jotali nañ ak cantu sëñ Mountakha waaye danañ jotali sa taxawaay sëriñ Mountakha yaag sëriñ Abiwu sëñ Mountakha mi ngi sant bokki bi yëpp di gërëm ñëpp di ñaan lépp lu ñu song ànd ko Serigne Touba taje <clears throat> jeeg mbërum mbégum Serigne Touba ak tawfeexi Serigne Touba Serigne Abibou mu ngi jottali ñu jottali cantuk Ba mi nga xam ne moo yor agence bi te ak Ablaye Sow mi nga xam ne moo yore grande muraille de commerce moo yore chambre de commerce waaye dafa yore grande muraille verte te taxaw ci taxawaay bu rafet nekk ci suñu wet loolu bi ñu koy leeral sëñ Abibu te jant ko dinañ ko wetal sëñ Muntaxa incha allah